jërë ngeen jëf mbokk yi ngi leen di nuyu di leen ziar waaye nag jën nuyoo bi ak ziar bi ah, di ko jiital ci sëriñ Mountakha Mbacké xalifa ah, général kullu murid di ko ñaanal mu yàgg fi lool te man ak wér mbokk yi bés ba ñëpp doon xaar yegg na di tey jile àllarba yemook fukki fan ak benn ci weeru août 2021 ah, di bés bi nga xam ne moom la sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général kullu murid daal di woote ngir ñu daal di dundal li nga xam ne mooy xasida yi E fépp fu waaye man di nekk ci àdduna waaye rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba loolee tax fii ci diwaan bu Daaru Minaan mbooloo mu takku nañu fi nemmeeku bi ndax ambiance bu tax fii ci diwaan bu Daaru Minaan ambiance mbooloo mu takku lañ fi nemmeeku ñoom rek ñoom moo xam ñuy kuréel moo xam dañuy durus ak lu ak lu ñuy man di def rek ñu ngi leen di nemmeeku ci biir baas bi mu nekk mbooloo mu takk lool moo xam muy góor jigéen mag ak ndaw bàyyi wuñ kenn mu nekk bés boo xam ne bés bu mësul am ci àdduna la euh, nekk bés boo xam ne c'est une journée exceptionnelle une journée inoubliable une journée qui sera restée dans l'histoire de Touba dans l'histoire du Sénégal mais aussi dans l'histoire de l'Afrique également dans l'histoire du monde entier kon nak mbokk yi danañ dugg ci biir bass bi ngir dal leen won li nga xamné moy ambiance bi nga xamné mo nekk ci biir bass bi nekk ci biti lepp lo xamné yitté yittewu ngeen ko ñu war leen ko won inshallah allahu rabbi dañ leen ko won ci euh, suñu chaîne bi Waye xamna sax du ñàkk ma am ben jëwriñ bo xamné mi ngi fi ci ahlul minan euh, mu wax ma ni nga xamné ne la liggéey bi di démé fi inshallah allahu rabbi maa ngi tudd Djili Ndiaye maa ngi bokk ci euh, coordinateur yi nga xam taxaw site bi site principal bi di site daru minan, nga xam dafa composé wat momit it ñetti ñetti sites yu bokkul mu site 1 di bâche bi ak site 2 di mbar mbar mbar mi nga xam mo den rek barab seigne basirou ak site 3 di mbar mam Jaara bi gannaaw yalla mm, basi mom wax deug yalla niñ ko niñ ko organiser nenn kessa la moy dañoo bëgg fexe ba soxna yi nga xam dañuy jang mom ñu duggal leen ci biir kër señ bi ngir ñu bañ a ñi ngay gis ñuy rombante daanaka ay nit ñuy dem la xamna né di wër seeni mbokk wala di xol fan lañ mëna tok ba mëna jëfé ndigal ni waye lu ci mënti xew dal organisation bi fi am moy goor ñi dañ leen di ber ak jigen ñi bo ngeen duggé fi rek da ngeen gis ne jigéen ñi dañ leen a ber di leen jox ay téré ñuy juk ñuy ñuy jàng ni goor ñi wax dëgg yalla kon loolu bokku na ci li nga xamné dal euh marqué na yu bëri ci liggéey bi té dara war la ko lu sàmmonteeg ni nga xamné non la ko suñu borom bëggé site 1 bépp kuréelkat boo xam ne da ngaa bokk sa programme dafa nekk ci site 1 muy bâche bu mag bi dañ lay dugal ci biir nga tiim kuréel bi nga xam ne ñoom ñëpp secteur lañ leen woo ndax li ñu doon bañ mooy koo xamante ni buñ la wooyee secteur doo ñëw soo ñëwee di calculer ay heure su yàggee maanaam ñàngum durus mi da nga koy weesu fii nag comme durus la ak yëkkati moom moo waral ñu convoqué kuréel yëpp ñu teel a ñëw ba nga xamante ne ni li sëriñ bi digle ko def ca nam waree sécurité moom mën nañu am na fi ndax këpp koo xam ne jël nga sa dispositif sécuritaire lu ci mel ne ay benn port nga ko wutal te port bu nekk ci wàllu santé def nañ fa benn maanaam dispositif de lavage boo xam ne dana dimbale nit ñi ñëw ñu mën a raxasu takk seen i masque ndax mbaar mi rek ku takkul masque daanaka doo fa dugg te buñ gisee ne takkoo masque leen la fekk fi nga toog ñu jox la masque ngir ndigal moom jëfe rek te sëriñ bi ci boppam ñëpp foo ko gis ñaare mu ngi tegoo masque woowu nga xam ne maanaam mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy jëfe mu ngi koy mu ngi koy santaane ngir tawat gi nga xam ne mu ngi law ci àdduna bi yëpp yàlla ci yàlla musal jaar fi teggee ko ba faw ci daraje sëñ Basiw barke bu waa këram barke sëñ Abdou Akim xaside yi nga xam ne ah, dañ ko yittewoo ci biir bâche bi a nekk waaw xaside yi nga xamante ne nii ñu ngi ci biir bâche bi mën nga ne xaside la yoo xam ne suñ mbokk taalibe yi di waa Hizbut a ah, am na lu leen ci sëriñ bi junjoon loolu rek lañu respecté ndax ñu dañuy liggéey ñoom enfas phase nekkuñ ci def suñu yëfi bopp waaye du tee comme daar ji organisé lañ wax dëgg yàlla dañuy mën a jàppalante ci yu bari teewut ñoom lépp loo xam ne jëlee nañ ko ci ndigalal sëñ bi ñun bu ñëwee nañ ko nañ ko digalee rek lañ koy defee ndax comme ndigal lu mag li moom sëñ Muntaxa la jóge jaar ci ñoom jaar ci sëñ Amsa dem ci ñoom ñoom ñu di ko organiser lu ñu tënku tënku it dañu leen di fekk si ci ni ñu ko tënkee te wax dëgg yàlla nañ ko tënkee tënkin wu rafet la ñun nag ci suñu côté wut na ci ay xasida yu doy mbaar moo dem daanaka ay xas xasida yi ci mel ay nuur daare ne jaali ba toog yi euh, xisnul abraar ak nu euh, muxadimatul xidma ak xasida durus yi ci ëpp yi ci gën a siw benn bu ci nekk daanaka ay téeméeri téeméer lañ ci wecciku fi mu toll ni baar baas boo dugg da nga fa fekk téere yooyu ak ay diwaan yu bëree bari bëri daanaka mat ëpp na 25 diwaan ñu ngi ko tasaare ci biir euh, ñetti site yooyu ba fii may wax ak yow mbokk taalibe yaa ngi koy yëkkati ci ndimbalal yàlla. koo xamante ne nii maanaam euh, maanaam da ngay da ngay taxaw lu yàgg moo xam soxna su taxaw lu yàgg di filmer ak yooyu dañ lay ñaan njekk nga dugg ci biir fi soxna yi nekk. ngir nga mën a def liggéey bi nga xam ne moo ñu fi indi bu dee nag nit kuy romb moom deen maslaa moom ba mu jàll bëgg nañ daal mu fees dell ci ndigal bi ko sëriñ bi déglee muy durus ak jàng xasida ndax fi moom boo nga xoolee amul dal li fi nekk mooy ay bâche yoo xam ne dañuy ut ay ay chef de secteur ay ay chef de de site yoo xamante ne nii kenn ku ci nekk xam nga sa tâche laataa nga fi ñëw mooy ñaata xasida ngay jàng xasida yi boo ko jàngee da nga koy bind repérer ko bu ko defee ñu ñu mën a xam lim bi ba bu ëllëgee ñu mën koo jëbal sëriñ bi Eh, jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ko déggandoo dégg ngeen ni nga xamee ni noo la koy jëriñ ji waxee mu nekk liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la waaye gis ngeen ambiance bi nga xam ne mu am fii ci dëkk bu sell bi di Touba waaye rawatina ci dëkk bi eh, di Touba Daarul Minaan comme niñ leen ko wanee ambiance bu doy waar la ñu fi nemmeeku xam naa liggéey bi day wëy incha allahu rabbi eh, li gën a neex mi ngi ci kanam